2002 kii mooy Moussa Ndiaye équipe nationale kii ren tour tournoi nawetaani moo ko jël barke alxuraanu kërim di suñu grand bu baax a baax 2002 amul lu mu fa deful Sénégal ñëpp a xam Moussa kon bu ñëwee fekk suñu ñun dañuy kontaan di ko ñaanal yàlla barke alxuraan mu ju nekk entraîneur Sénégal mën na ko ndax mën na ko te yàlla dina ko def kii mooy grand Moussa Ndiaye barke alxuraanu karim. léegi écurie bi est-ce que duñ ko ko dénk. non lépp moom fi ñun bu waxee ñun amuñu kàddu ñun dañuy génération Mouride maanaam comportement Mouride kii bu waxee ñun amatuñu kàddu lépp moom dañ ko ko jox fu ñu grand la waaw. waaw lu may wax lu rafet la rek ñun parcelle lañ dëkk te parcelle moo ñu ñor bu ñu parcelle woowee ñu ñëw sport bi parcelle la te yaakaar naa buñ ci jàppee dina dem te maa ngi leen ñaanal yàlla defal leen jàmm te liñ ci soxla yàlla may leen ko waaw di leen ñaanal ay ndam yu bëree bëri bëri looloo tax ma ñëw fi nag pour doole leen doole wax leen ne ba ngeen topp sama ginnaaw damay topp seen ginnaaw léegi di leen gerte di leen wan yoon bi di leen wax waa Sénégal am na lu bees yu ñëw lu bees yi ñëw ne nañ ci jàpp jërëjëf. mais Moussa Ndiaye ak équipe nationale parce que dégg naa Batika léegi mu ne man nga yor sa équipe nationale en tant que looy munti def noonu da ngay jéem def ci kanam rek te ñaan di ko wax ne damay liggéey rek te lépp ñuy liggéey suuf lay commencé jëm ci kaw di ñaan nag lépp rek mu nekk si tey ak dal. sa ay mag raq rek te ay comme li ñu wax rek dem nañ bu bokk bokk ndey baay nit ku jóg ñëw ba sa buntu di la wax yow da nga war a teew te yaakaar ne ne parcelle bu la taxee jóg rek ñëwal te parcelle ma tax a ñëw nag pour ñoom pour wan leen ne mbër yi man ak ñoom ñëw faat jël wax le sport la daal sport loo xam ne gañ te gañ nag dafa am fu muy jaar pour gagner waaw ñun ñëpp nañ bokk ndey ak bàyyi te ànd te yaru te am lu ñuy soxla ñu dem jëli loo koy ñaaxee ku maanaam lii bu bees li mu koy sanc en tant que grand frère en tant que sportif de haut niveau international loo ko mën a ñaaxee ci li des ci siitu carrière am si carrière mu wax mu gën a góorgóorlu liggéey bi dara jeexu si mun na ko am na ko te lépp buñ ko jàppee rek mu dem di ko wax ne nag lépp balaa muy ñëw mun metti te bu metti nag bu mu xaddi na gën a jàpp rek gën a dëgër waaw kontaan yow. jërëjëf may nga ne écrit bi nu mu waaw écrit bi ngeen ko duñ ko xam nga yéen ñëpp jàng ngeen école liir na. Eh, yaa ñu gën a jàng dëgg la barke xam nga gars yi dañuy la. nooy gars yi dañuy bëgg ma wax te man. waaw waaw dëgg la mais écrit bi yooyu yëpp dama ciy jublu mais dafa am lu jiitu loolu. bi nag ñun yow lañ dinañ loxo bar dinañ ko dafa am lu jiitu ankay barkeel man jàng naa je fais les bancs barkeel rasulaay ku dem ba jàng troisième cycle informatique kon boo xee gën mais dama basta rek lii telee naan basta non dooma dafa am lu ko jiitu wuy ma dafa am lu ko jiitu nee ma lu ko jiitu dañoo xiif Siteu eh. dama ne Siteu la ñu xiif amul lenn luñ wuy ma fii tàcc tàccaara la fi ne ñun mos wuy ma bu njoolee wuy ma ñun dañoo gàtt am doole am puissance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 Lac de Guiers de moom ah, a màgg yow itam. xoolal biir bi. Ah, dégg naa dégg naa nag ñuy taxaw xool di jéem a ay di jéem a naan ni naan ay nii ay ma ko liiru jan wuy ma kooku dama koo classé dossier am dama koo lem Lac de Guiers 2 mi ma daanu 2004 moom na pare. yow mi yàgg may ma ñu jël ma tuuti dama koy wane ne ma biir may ma mu jël ko bul nëbb bras yi déggoo li ma déggoo li ma barke alxuraan maa ngi ni déggoo li ma woo kong barke alxuraanu kërim xam nga ñaata fan laa entraîné huit jours ponkal